maa ngi lay weddi Ziguinchor département yi gën tuuti Sénégal la bokk bàyyi leen ponkal moom ponkalu fenkat boobu di wër di manipuler Ziguinchor ba département def Sénégal bàyyi leen ñuy dox seen kaw maa ngi nii ma nee Dakar danga d'accord la ah? boo mënee Mbàkke mi ñu ëmb Touba d'accord naa ne rëy nañu boo mënee Kaolack rëy na boo mënee Diourbel rëy na dañoo ko gañe boo mënee Kaffrine rëy na boo mënee Nioro rëy na mais lan mooy ndeyu ngeen di dof doflu topp ab taf boo xam ne dañ ko peinture tudd Ousmane Sonko tekkiwul dara maire moo gën a ñàkk fayda ci maire Sénégal yi moins de un pour cent de la population ñu naan ma ay ay ay département yu rëy comme Ziguinchor Ziguinchor sa waay moom moomu ko xam nga ne ni mu demee la rek Ziguinchor yàgg naa am ay particularité gagné ko kenn waru ko sax tiidaroo day wane am nga taxawaay boo xam da nga yore ba pare nag di ko mbubboo di ko woote bu ñu nee jàmm mu ne mukk Macky Sall dafa bañ Casamance pour Casamance yi ànd ak moom mel ni mooy seen avocat défenseur fekk day fen Macky du muy bañ a Casamance day fet nañ ma nii la Macky bañ a Casamance fenkat la Ousmane Sonko mais da ngeen ko ragal yi ci yëpp yëpp presse bi dañ ko ragal ba di buy wax ñii pat pat pat tàppet ko ndax booyee nii xaj yam xajam yooyu di saaga waaye xaj bu saaga saaga bi loolu la du leen du kenn nit ñi Sénégal am leen fulla Sonko ëpp ci doole ñaari tàngal yooyu ñaari loxo ak benn bopp bañ ko bañ ko bëggee duma dafa dem ci benn magasin làqatu fa jour procès Barthélémy Dias Barthélemy Dias bi ko fi jafee ci kaso bi ma doon avocat am daa woowoon koŋŋ koŋŋ koŋŋ génn naa dama doon sport ma doon bu may dee ñuy bàkku di napp nit ñi ñoon Barthélemy Dias di naan bu ma gañewul Dakar damay bàyyi politique wax yoo xam ni waa Dakar ñoo ñàkk fayda ñu falee koo xam day daf di bàkku seen kaw di xeex ay policier buntu direction générale des élections naan dañu falsifier su liste di fen fu ñu falsifier liste yéen yéen dégg mu ne administration bi moo falsifier liste bennoo ba moom moo am problème pour ñu rejeter liste ñu seet ci bi ñu ne Saliou Sarr la Déthié Fall la mu jigi kon administration fan la falsifier liste Dakar kooku mérite na nekk député Dakar wala bay nekk maire Dakar waaye Dakar yéen yéen yéen jël seen loxo mais Hitler Hitler faloon nañ ko fi ah mais Marine Le Pen moo topp ci Macron ku gën a yées ci monde bi Marine Le ku bañ africain yi ñi ñi mën nga gañe fekk yaa gën a yées mais boo amee ay tàppar yu la wër ngay ngay avancé yore ay pistolet tëb di dal ku fi pistolet ñu pistolet sa ndey ku fi menacé ñu menacé sa ndey ku bëgg taal sa gaañu taal sa ndey taal sa baay taal sa yumpaañ taal sa maam gis Sénégal gi dañ ko bokk sunu maam yi liggéey ko sunu maam yi Diouf lañ sant nag Ndiaye ak neneen sunu maam yi jóge wuñ bitim réew ñëw bëgg a taw suñu réew mi ay authentique sénégalais la ñun am nañu mën a daw génn Sénégal Sénégal tàkkee mais ñun ñu fee ni ak ñeneen sénégalais mënuñ génn Sénégal parce que sama bakkan laa jaay samay doom mënuñ daw génn Sénégal